waxum ñoom jullit ñi dugg aljana ba pare xaaliduna way bel lañu ca jooje la aljana duñ ca génnati mukk yal nañu ci yàlla boole mu ne jullit ñi boo demee aljanna jullit ñi yàlla mboolem façon teraanga bu ñuy teraangalee gan yàlla dana ko teraangalee julliti aljanna yi lu nekk dana leen ko defal dana leen ko defal de su ko defee nag lii gën fes ci teraanga yooyu mooy seen kër ak seeni jabar bu ko defee jullit bu nekk ci aljanna ku ci gën tuuti jabar dana am junne jabar ak téeméer ndax dana am junney jabar yoo xam ne ay jeeg lañ dana am junne ñeent juróom-ñetti jabar yoo xam ne ay jeeg lañ dana am ñeneenti jabar ñeneenti téeméeri jabar yoo xam ne ay janq lañ ak téeméeri jabar yoo xam ne xóor ci xóoru ayni yi ci la bokk bon lu nit tuuti tuuti jabar dana am junney jabar ak téeméeri jabar de su ko defee nag jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun fii ci àddina si buñ demee aljanna ñooy gën a rafet xóoru ayni yi lu tax ndax yàlla xam na ne jigéen taar rek la bëgg su ko defee jaamu yi ñuy jaamu yàlla fii yépp di ko sonnee yépp yàlla daf leen koy soppil ay taar bu ay bu bu yowmal qiyaamati jotee mu sàng leen ko su ko defee ñooy gën a fet xóoru ay nii de ñooñu itam ay ay jabar yi nga xam ne yi ngi leen di am foofa ci lañuy bokk ñu ne yonant te nag ki am junney jabar ak téeméeri jabar moo gën a néew ay jabar foofa ah, bu ko defee ñu ne yonant sallallahu alayhi wa jabar yooyu yépp naka la nit di nekkeek ñoom naka la nit di jokkalanteek ñoom waxtu wu nekk bu nekk boo ci jokkoo kenn rek mu ngi mel ni yaa ngi jokkook ñëpp mu ngi mel ni jant bi bu bu sonkee ñëpp la sonkal ñëpp la fenkal ñëpp a ko bokk de naka noonu itam boo boo booy booloog sa benn jabar ci jigéeni aljana yooyu dafa mel ni ñoom ñëpp ngay booloot ci même ci même waxtu de ah, te loolu itam mu ne mi ngi mel ni sa lekk gi ngay lekk sa biir ni muy tasaarooyee lii di dem fii lii di dem fii lii di dem fii lii di soppeeku ñàq yooyu yëpp te ci genn lekk gi rek la bàyyeekoo bu ko defee loolu itam mooy nit ki nga xam ne góor gi nga xam ne am na junne jabar te buy booloo kenn ci ñoom mu ngi mel ni ñoom ñëpp lay bokk booleet mbóot yi yàlla la sekkar yàlla la yoo xam ne yàlla defal na ko yàlla defal na ko ko waaye ba tey itam yàlla moo ñu xamal ne نون لاي ديمي سي لا لا ميني آه، يونس محمد صلى الله عليه وسلم وهم يوم خالدون وي بيل لا فوفا سي الجنه يوي دي بو خاسي دوغو الجنه دوتو فا غيناتي موك يا يان سي رك تراغا يالله يو خامني سيكل بو ييخ رك مو تامبالك ياو بنين موتاخ ولا دينا مزيدون بو ديمي تام ميغي واخ سي وا الجنه هل من مزيدين ndax ma doli len ndax ma doli len su ko defé yow yàlla lo ñuy dolé ci lépp lépp lépp jeexna rek bu ko defé rek yàlla andi len doo leen loo xam ne nekkatoon ci seen xel de wa bada min allah ma lam yakunu yahtasibuna ñu gis lo xamné mustanak ci seen xalaat mu suñ ko tok motax yoonte bi muy melal aljanna mune mala aynun raat wala uzunun samiat wala xatara bi qalbi bashar lu nopp mësta dégg bët mësu koo gis tey te musta mësta toq ci xelam doomu aadama loolu moom la ñu yàlla di xaaree ëllëg ci aljana ñu jul ñii de yàlla ñu ci yàlla boole te lu ci lu ci ñëw rek dafay gën a neex gën a màgg la nga xam ne romboon na de moo tax yàlla ak ñuy wax ne hal min mazidin hal ma mazidin ndax ma dolli leen ndax ma dolli leen su ko defee nag ndolle ni yàlla gu waxtu nekk bu ñëwee rek andil ñu beneen cycle boo xam ne bu bees la bu ñu xamutoon ba lay jeex na duggaat nañ ci beneen cycle boo xam ne ba ilaa ba na naka noonu naka noonu rek yàlla mu ne ngeen bél ci nag du ngeen ci jógati mukk laa dina de inna allaha naka yàlla la yastaxi an yadriba masalan kooku lu ko wasal wàcc na ci Quraysh ñu ne waay waay yàlla mi yàlla yonent mu màgg mii amul dara lu muy waxee lu mooy ay jargoñ aki ay weñ tey <clears throat> yeneen nekk fi waaye yonent mi daal dëgg-dëgg nag li muy wax lii kenn mënu koo dégg de yàlla mu mbëru mu màgg mii te bu ñuy indil ay misaal ay misaal yi ay ay jargoñ ak yu weñ loolu rek la ñuy indil misaal ah dëgg-dëgg nag yàlla war naa ëpp loolu de warta waxee loolu yàlla tontu leen moom yàlla yàlla di tontu ne inna allaha naka yàlla laa yastaxi du mu bayi an yadriba bu mu defat masalan lépp ma lu mu mën ci doon lu mën ci doon yàlla dina ko léebeede baawudatan yoolamu fa ma fawqaha ikki lu nekk ci kaw yoo de yàlla lu ko neex mu léebee daf ko neexee mu léebee yoo bu ko neexee muy léeb la nekk ci kaw yoo du demee ni ki weñ jargoñ su ko neexee te mu léebee leneen lu nekk ci suuf yoo fekkee nekk na loolu yépp ci kàttanal yàlla de yàlla nag wax na inna allaha la yastahi yàlla durus yàlla yàlla durus ndax amut rusukaay xol ci la nit di yëgee lu koy rusloo nit def na loo xam ne ñaaw na ragal na ñi di ko ko ñaawalee su ko defee loolu daf koy indil gàcce ci moom te loolu amul ci yàlla de waaye nag li ci am mooy lan mooy ne yàlla nit kii def na lii ñu ngi ko koy ayibalee mu rus ci ba tax mu bàyyi ko mu ne bàyyi googu nag la yàlla di def de yàlla moom amul lu muy rus waaye nag lii rus rus li muy indi mooy nga bàyyi li rusloo naka noonu itam yàlla itam du bàyyi di waxee waxi léeb yi di léebee ci yu ndaw yi di léebee ci yu mag yépp yàlla dina ko léebee su ko defee nag yéefar yi di wax loolu dañoo bëgg werante rek dañoo bëgg tooñ yoonante rek waaye ku nekk xam na ne yoo yii ak weñ yii yàlla def na ci ay kéemtaan ak i xalamuwaay yoo xam ne su fekkoon ne xalam nañ dëgg-dëgg danañ xam ne yàlla waxut waxi waxi waxi waxi kuy saaxaan rek di romb di dem waaye li nekk ci li nekk ci yoo ci kéemtaan yàlla defu ko sax ci ñay de ndax ñay gis nga nim réyee lépp lu nekk ci ñay rek mu ngi ci yoo yàlla dolli ci yoo am na laaf laaf yu muy naawee te ñay amul laaf yu muy naawee de gannaaw loolu itam yàllaa ngi def ci yoo ci ci yooyu ak weñ yi kéemtaan loo xam ne itam boo ko seetloo danga xam ne lii ki ko def borom xikmatu la boroom xam-xam la de xoolal weñ yi niñ bëree ak itam weñ nim yabee nit léegi ñu ñëw toog ci suñ jotaay yi fees fi del boo daqee mu del si boo dàqee mu del si yo yo yooyu itam noonu lañ mel ñeme ñoo dugg ñeme dugg ba ci suñuy biir néeg ba ci suñuy biir lal ragaluñu bu fekkoon ne nag ñeme googu ñu ñeme yàlla def na ko gaynde yi ñemeeñu ko wala tene yi ñemeeñu ko wala xaj yi ñeme ñemeeñu ko bon fu àddina jëm bon àddina dana tukki de te itam nekk ak yooyu ak yent yent yi ci kaw suuf si li ñuy liggéeyal suuf si benn machine mënu koo liggéeyal suuf si de ndax yu yu bon yuy lor yi nekk ci kaw suuf si yépp boo demee ñoom ñoo koy naan ñoo koy ñoo koy ñoo koy jeexal ñoo koy naan de ku la gën a bëri lee yant yant yooyu moo la gën a bëri suuf soo xam ne yooyu di lor nit nekku ci de gannaaw loolu itam da ngay gis ne yoo yooyu doomu aadama mën naa netaal lu nekk mën naa netaal ñay mën naa netaal gaynde mën naa netaal lu nekk mën na koo xeet ci xeer yi wala mu dese ne ko yoo nag munu ko de ndax bu ma nee yoo itam bu ma nee defar yoo itam lu ëpp yoo lay defar waaye du defar yoo ndax yoo ni mu tuutee ak noonu mu em yépp lu xereñ xereñ xereñ xereñ portale kat bi mënu koo portale waxuma portale kii de portale caméra yi portale kii rek la yi nga xam ne dañuy dessin ak dañuy ett ak dañuy def yooyu ñoo ett lu yem ni yoo ndax mën nañ koo def mu rëy lool nga xam ne dootul yoo lii leneen la waaye nag yoo ba tuutaayam bag lam-lamboog yépp kenn mënu koo eh, kenn mënu koo copie ci ay ay ay ay ay dessin wala ci ay statue yooyu kenn mënu koo def def yoo de teg ci itam nga xam ne weñ ak nim ñu ñemee lu nekk ñeme nañu ko fàdde benn waay nee na benn borom xam-xam mbaamun amirul muminin na laaj na benn boroom xam-xam ne ko waaw weñ yii lu muy jëriñ mu ne ko toroxal buur yi rek mu ne ko ci naka mu ne ko buur bu demee ci wonagam weñ fekk ko fa tag ci ay tojalam tag ci kawam munu ci dara mën naa dal ci eh, eh, eh, ajatoom yi léegi ba pare ñëw dal ci kawam moom buur bi te munu ci dara boo dàqee mu del si yoo yàlla wax na ci yooyu ak ankabut yi wa inna bu buyuti la baytu an ankabut yi law kaanu yàlla mun a baytu boo xam ne néeg boo xam ne mënu laa fajal tàngaay mënu laa fajal seddaay munu laa fajal euh, taw mu ne loolu bayti boobu ko tuddee bayti da ngay caaxaan du bayti de mu ne loolu nag ci la xéefar yi nekk liñ nekk jàpp ci yépp foog na dëgg la lu leen di musal la yowmal qiyaamati mi ngi mel ne rek bayti ankabut lu bayti ankabut mënut seen yooyu ñu nekk mën na lu leen ko ëllëg ci àllaaxira de yooyu itam euh, weñ itam dégg nga euh, wa in yaslubhum zubaabu shay'an la yastanqizuhu minhu da'ufa taalibu wal matlubu maa qadarullah xaqa qadar laa inna yu qawiyyun aziz boo demee ñoom tamit da ngay gis ne weñ yi yàlla ngi wax ak yéefar yi ne leen weñ yi seen yàlla yi ngeen samp ne ñooy yàlla diwal leen yi ngeen leen di diwal yépp bu ngeen leen diwalee ba pare yooyu ñëw foqal ko ci ñoom te yéen mënu leen ci dara te yàlla yi itam mënuñ ci dara de seen yàlla yi bu yooyu tagee ci seen kaw yàlla yi mënuñ ci dara mënuñ leen a dàq bu ñuy Ee, bu yooyu di di di lekk di ngeen leen diwal ci ay lem ak yu mel noonu ñoom yàlla yi munuñ ci dara su ngeen su ngeen itam da ngeen dàq yéen yéen di dàq su ko defee bu demee tuuti ñëwaat ci liñ mën bon kattan googu nga xam ne yàlla def na ko boole ci beneen euh, secret boo xam ne nag mooy ne euh, doomu aadama ci minde euh, minde bindeefu yàlla yépp yàlla moo leen boole ñoom ñëpp am na loo xam ne moom na leen communiqué muy ay mbóot yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi koy joxante ñu ngi koy dundante te kenn xamut lu dul rek mbootam yàlla la yàllaa ko def yooyu ak weñ yi li ñu jëriñ jëriñ li ñu ñuy lor lor waaye te réew ñu ngi ñuy jëriñ de ndax yoo ak weñ mën nañoo defar sa néeg defar sa pare ba mu rafet lu nekk def nga ko ca waaye mënoo caa génne yoo de mën ngaa tëdd rek ci sa pale bu rafet rek sa lal bu neex benn yoo nelal nga rek doo doo nelawati yàq sa guddi gi yépp mu yàqu te mu te mënoo ci yow yow woowu dara de naka noonu itam weñ mën na laa def loolu ci sa biir tool sa njaay moo tànn ba mu rafet nga taal ne yaa ngi jaay weñ yi ñëw rek di ci dal yàqal la sa dund yàqal la sa marchandise yàqal la sa yépp loolu itam ni ngi ànd ak kattanal weñ yi ak yooyu ak seen jëfandikoo ak seen jokkalante ci doomu nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee bon nag xeefar yi wax naan yàlla dafa euh, dafa iboroon nañoo léebal léebal lu ëpp yoo dañoo xamul li nekk ci ay yoo ak mand ak ak weñ yi ci ay kéemtaan de moo tax mu ne inna laa nag yàlla yastaxi du mu bay an yadriba bu mu defat masalan lépp maa lu mënti doon bawdatan yoo la mu fama fawqa ikil nekk na mu ci kaw yoole fa ama alladina laa ñaa ñaa amanu gëm nañu fa yaalamuuna danañu xam ne annahu naka woowale léeb alxaqu aji tàbbi la mu tàbbi waayam de ñi nga xam ne nag gëm nañ xam yàlla danañ xam ne léeb woowu fi ko yàlla waxee rek la ko fi ko yàlla waxee rek tàbbi na tàbbi waayam de wa ama alladina waaye ndaa ñaa ña kafaru weddi nañu fa yaquluuna danañ wax ne maza arada ana lu namm na ko yàlla biha allahu yàlla bi haasa ci léeg-léeg masalan aw léeb de ñi nga xam ne nag gëmuñ yàlla dañ fiy nekk nag di di werante di di laajante waaw lii lu ci yàlla namm ma ay ay ay yooxaki ay jargoñaki ay euh, weñ loolu lu ci yàlla namm yàlla moom ñi nga xam ne gëm nañ yàlla xam nañ ne lii yàlla wax mooy dëgg lii yàlla wax tàbbi na na war a tàbbee xanaa kay des borom xel mu koy jëriñoo ak borom ku ñàkk xel kuy wedd rek ñoo fi nekk de waaye lu nekk rek tabbi na la nga xam ne wala tabbee de buur ne yudillu dana mu réeral bi ci moom ci léeb wi kasiiran aji bari ci walis ñu gis dëgg de ñu ci seen keefar waye di te muy jubal bi ci moom kasiiran yu bari ci way gëm ñi de ak ak ñi gëm yàlla dëggal ko ñoom i tamit danañ ci joxe gis njub ndax lii yàlla bind yépp ci àddina bi ba muy bind tàgguwut kenn kenn fekkewut mu bind tëral na ko neexee amal na ko neexe di wax ci nim bind na ko neexee yow nga ñëw barki démb rek naan ko yàlla lu tax ngay waxee nii lu tax ngay defee nii dëgg-dëgg da ngaa xel rek waaye xam nañu li ngay wax tëraloo ko fenn moo tax yàlla mu ne moom yàlla moo ko def ngir ñi nga xam ne gëmuñ gën a réer ci seen ñàkk gëm gën doon ay xéefar ñi nga xam ne gëm nañ itam yàlla gën cee dëgëralee seen gëm yàlla ndax ñu gis kéemtaani yàlla yi nga xam ne yàlla koy feeñal ci lépp loo xam ne bind na ko ci yoo yeeg ci jargoñ yeeg ci euh, weñ yi ak yeneen yu mel ni ñoom yépp yàlla nga ko bind ci feeñal ay kéemtaanam de wa maa yudullu waaye réerut bii ci moom illal faasiqiina na way génn ña topp yàlla de ñi nga xam ne nag ñoom dañoo gëmut weddi yàlla faasiq am na ay piri faasiq dañ koy wax jullit boo xam ne dafay mooy yàlla mooy goo xam ne mooy gu sax la wala mooy goo xam ne mooy gu daggantal la léeg-léeg mu mooy dem tuub ragal yàlla kooku dañ koy wax rek faasiq nga kenn ko wax éefër nga ndax bàkkaar lu màgg lu màgg màgg taxut borom doon éefar bon nag faasiq la ki nga xam ne dafay mooy di balu di mooy di def bàkkaar yu mag yi di balu kooku faasiq la bu fekkee dafa def cee sax ba tey rek mënta génn faasiq te yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam maa asarra man istaghfara walaw aada fi l um fi l yowmi sabiina maratan képp koo xam ne bu defee tuub kooku kenn du la wax ne da ngaa biil ci bàkkaat waaye rek euh, jaam nga boo xam ne xam nga ne balaa euh, balaa mi ngi nii rek yàlla mu mu ngóof euh, rek dem di balu yàlla di tuubal yàlla yàlla itam nee na feeg yaa ngi balu rek ma lay jégal te yàlla yonent wax na ne law lam tuxsuu wa tastaxfiru la jaa bi qawmin yasuuna wa yastaxfiruun su fekkoon ne du ngeen fi nekk di mooy yàlla di jéggalu yàlla dina leen fi jëlee indi ñoo xam ne dañuy mooy di jéggalu bon nag faasiq mooy kooku waaye faasiq fii nag moom faasiq bi mu si jublu mooy xéefar yi ndax ñoom dañoo génn du topp yàlla du du mooy yàlla rek lañ def du dañoo def ay bàkkaat mais dañoo weddi loo xam ne yàlla saxal na ko te jàngoon nañ ci liñ jàng démb loo xam ne yàlla saxal na ko ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent saxal ko képp ku ko weddi rek xéefar nga bon nag lii ñuy weddi ci yooyeeg pi yooyeeg ak euh, euh, weñ yi ak weñ yi ak jargoñ yi yooyu yëpp dañ koy weddi rek ndax dañoo doon ay xéefar waaye bu duutuñu ay xéefar lu ñuy weddi nekku nekku ci de euh, alladina ñaaña yanquduuna danañu firi ahdallahi kulle rek yàlla gëm kulle réwantuwe ñi yow alastu bi rabbikum yàlla waxoon ne lastu bi alastu bi rabbikum ñoom ñépp ñu ne balaa gannaaw gi nag dund am na yàgg am na da tabiya ñëw na matière ñëw na yépp jaxasoog doomaadama ba fàtte ko ba fàtteloo ko cosaan la nga xam ne moom la jaayante woon ak yàlla ci ne dana ko wéetal dana ko topp yu bari jaar na ci digganteem doomu aadama ba jaar digganteem ak yooyu am na ñoo xam ne seeni xol muuru nañ fàtte nañ am na ñoo xam ne nag seen jaayante gañ jaayante woon nag yàlla ba léegi ñi ngi ci waxtu wu nekk rek ñu ngi koy gën a dëggal ci seen i wax ñu ngi koy dëggal ci seen i yëf li lay jamono yu wuute kàttanu wuute yi mais terewul ñi nga xam ne fàttewuñ ñu ngi fàttaliku ba léegi moo tax yàlla bu yónni yónnante yi dañuy ñëw rek ñu fàttali nit ñi aha jaayante woon ngeen ak yàlla kat waxoon ngeen yow ma lëstu bi rabbikum yéen ñëpp waxoon ngeen bëlee bon nag bëlee jooju ngeen waxoon fàttaliku leen ko mooy ngeen nangu ne yàlla moomu mooy seen borom yàlla moom ngeen war a jaamu keneen ku dut moom amul ci yéen àq ngeen di ko jaamu wala ngeen di ko màggal màggal kuy màggal yàlla mën ngeen leen a màggal màggal ak rek kii borom xam-xam la borom kilifa la na nga nga màggalee ko noonu rek bu génn bu génnut jikkoy nit waaye nag soo ko màggalee ba ku génnee jikkoy nit nag bu boobaa yaa ngi indi loo xam ne jafe-jafe la pour sa bopp jafe-jafe la itam pour nit ñi de ndax mbindeef yàlla yépp ñoo ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp ñu ngi bàyyeekoo ci kun fayakun ñun ñëpp ci lañ bàyyeekoo ba ñun ñëpp a am ñu ñëpp ak maas lañu ni ko ni koy waxee de waaye amut koo xam ne moo gën kii ndax fii la jógee moo gën kii ndax fii la loolu moom amut ci mbindeef yi isaa laaj nañ ko ne ko ni ya ne ko diw ak diw ku gën mu tibb ci loxoom ñaari loxoom suuf dali na ñaari tibb yi bu ci gën ñu ne ko benn gënu ci mu ne mu ngoog ñun ñëpp min ha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum yéen ñëpp ci suuf ngeen ko ci suuf ngeen di delloo de ci suuf ngeen di dellu de waaye ñi nga xam ne nag firi nañ seen kolëre wa yaxtaw na ñuy dagg ma amarallahu la digal na yàlla bii ci ma man ñu solo bu jokkee fat ko wa yufsidu na ñuy yàq fi la ci suuf ulaayka ñooñu la gaay mum ñoom alxaasiru la ñooma de way perte de yi nga xam ne yàlla santaane na ko ne def leen ko ci gëm yàlla ci topp yàlla ci jaamu yàlla ci jokk ak mbokk mbokk ci jokk mbokk ci jokk diggante doomu aadama yi li ci nekk ci ay ngëneel yoo xam ne yàlla ko def seen diggante yooyu yëpp ñu jokkalante ci dimbalante ci mu ne loolu la yàlla bëgg de waaye koo xam ne nag yooyu yëpp defu ko jokkut mbokk di dagg mbokk koo xam ne foo ko fekk mu ngi dagg mbokk koo xam ne foo ko fekk mi ngi mer koo xam ne foo ko fekk mi ngi jàmbatu koo xam ne foo ko fekk rekk luy taal fitna ak luy taal xay ak lu cay jëmee foo fekk loolu rek xamal ne kooku ci ñi nga xam ne seytaane war na leen di leen duggee ci biir nit ñi di yàq rek ko bu ko defee nit ku ne seytaane su nekk nit rek la parce que ndax iblis laaj nañ ko ne ko nit ñi koo ci gën a bëgg mu ne ku nay ba pare gëm gëm ne moom rek la moom kenn rek moo war a am ba pare ñaaw làmmiñ lu ko nekk ñeme na ko wax ci làmmiñam kooku bu ñu ko gisee dañ koy def buur rek lu lu lu mu def rek ñu ànd ceeg moom de bon nag boo ñemee duggee ci biir nit ñi yàq ñemee duggee ci biir ñi xaste ñemee duggee ci biir nit ñi wax yu ñaaw rek xamal ne ku la ku xam seytaane rek na la wattandiku de ndax xam na ne seytaanee ngi nii wala ku seytaane war ngi nii ngir yàqee ko de bon nag képp koo xam ne yaa ngi dox lu yàq diggante nit ñi kooku yaa ngi doxal seytaane de danga foog ne nag yaa ngi defaral nit ñi waaye lépp loo xam ne yaa ngi koy def ne da ngay jokkoog yàlla mooy lépp loo xam ne yàlla moom na ko nga jokkook loola lépp loo xam ne yaa ko moomal sa bopp nga bàyyi ko ndax sa bopp moom sa bopp euh, sa yëfi bopp ak sa yëfi yàlla mënta ànd léegi yàlla may na la jaamam nga may na la moo la moom may na la moo la bind may na la lu nekk bon nag yàlla moomu la may yooyu yëpp yàlla moo la moom de bon nag bul gis ci sa bopp loo xam ne gis nga ne yaa ko moomal sa bopp war nga koo war nga koo war nga koo fasale war nga koo fasale ak yàlla de bu boobaa yaa ngi dugg ci loo xam ne réer la yaa ngi dugg ci loo xam ne yàq la de yaa ngi dugg ci yoo xam ne yàlla ngi wax ne yufsiduuna fil ardi dañuy yàq ci kaw suuf de yàq ci kaw suuf nag bari na lool loo xam ne nit ñaa ngi ciy dugg yàq ci suuf doonu ne suuf si da nga koo mën a yàq waaye suuf si danga ciy def loo xam ne mën naa yàq waa suuf si mën naa yàq waa suuf si loolu mooy yàq suuf dëgg dëgg dëgg ni ki euh, tabax ay ay ay ay istateek tabax ay ay ay jaamu yàlla ak di ko tuddee ay patrimoine ak di ko tuddee nangam ak nangam di ko tuddee nangam ak nangam nga xam ne boo xasee patrimoine rek léegi fastele nga kooku ak yàlla ndax léegi xoolatul yàlla jëmatul ci yàlla mu ngi xool sama patrie bi ak suma histoire ak nu ma yem ak itam nangam ak nangam su ko defee loolu nga ubbi ko ni ñu ñëw di ko seetaan si di indi seeni xaalis di indi sa fasiq gu nekk danañ ko fa def ci guddi ci bés boobu bu ko defee loolu mooy fasaad fil ardi loolu mooy yàq ci kaw suuf lépp loo xam ne mi ngi dajale nit ñi ci kaw caaxaan ci kaw ay po loolu boo demee yàq la ci kaw nit ñi de jotaayu jotaayu football yeeg jotaayu làmb yeeg jotaayu fecc yeeg musique yépp loolu yàq la ci kaw suuf ndax waxtu woo ca nit ki ñekkee mi ngi mi ngi yàq temps bu bëri ci dundam temps bu bëri ci sa dund nga nekk ko ci benn place di yuuxoo ko tëba dal rek boo ca jógee ba pare ba ñibbi sa kër waaw man lu ma gañe suma équipe gañe na man lu ma ci gañe dara laa ci gañewul waaye nag su fekkoon ne temps booba ngay ngay yàq yépp fàttaliku nga ci ci biir nga fàttaliku yàlla nga tudd yàlla nga sant yàlla nga dellu dem ci dellu yem ci jaamu yàlla su ko defee moment bu gàtt boobu nga jël delloo ko ci yàlla moo gën juróom-ñaari waxtu yi nga toog yépp di yuuxoo ka tàccoo ka fecce ka kontaana ka te dëgg-dëgg boo seetoo da ngay gis ne kontaanoo dara suma ma équipe gagné na Messi gagné mooy jël ay milliards dem yow yëgoo ko moom yëgu la faalewu la amoo ci gañewoo ci dara te nag am na loo xam ne boo ko toppee sa bopp mën nga cee gañe yow mën ngaa gañee yoolab yàlla loolu naqa dinaa dégg waaye dë mooy moo xam def dara loo xam ne damay gañe ci yàlla ndax yàlla moo ma ko wax yàlla moo ma wax ne nii uskurkum yàlla moo ma wax ne topp leen ma euh, tudd leen ma ma tudd leen yàlla moom moo la wax ne ud'uni astajib lakum moo la wax loolu yooyu yëpp dama ko fi bàyyi dem seeti loo xam ne nit ñi man rek moo ko wax moo ma ko créer ma nekk fa di yuuxu rek bu boobaa loolu perte la de bu ko defee ñooñu ñooy yàq ñiy def yooyu di ko organiser organisation waajal ko def ci lépp loo xam ne mën nga ko ngay dajale nit ñi rek ci génn guddi caaxaan wala genn guddi fecc wala genn guddi lum mën ci doon rek loolu yàq la ci suuf de ndax temps yooyu seen borom yàq yépp jë jëlewuñ ci dara jëlewuñ ci xam-xam bu ñu doon jàng jëlewuñ ci yool boo xam ne ñu ngi doon jaamu yàlla jëlewuñ ci benn équation boo xam ne yàgg la nee na jaaxal ñu xalaat ci ba am ci solution yooyu yépp mën nañ koo perte te buñ ko te buñ ko defoon mën nañ koo am ndax yépp yàlla nga ko may doom aadama yépp yàlla nga ko may doomu aadama may na ko kàttan may na ko xam-xam may na ko xel may na ko itam cawar taane pour liggéey loolu yëpp nga pertal ko rek toog juróom-ñaari waxtu rek di yuuxoo ko tëbaka dal rek seetlu leen li ngeen def lan la amalu leen benn njëriñ dem leen dem leen ci seen téere yi ngeen jàng ñiy jàng dem leen ci seen liggéeyukaay yi ngeen liggéey yéen ñiy liggéey te yéem a yokku seeni xel ndax seen liggéey gën a mën a ubbeeku ci seen kanam ñii dem ci tool yi nañ dem ci tool yi taxawu seen bopp waaye am na yoo xam ne yàqkati suuf yi ñëw nañ ba yàq nañ yàq nañ suuf yépp yàq nañ nit ñépp euh, te loolu amul benn njëriñ de amul am amul benn njëriñ te yàlla nee na ñi koy def hum alxaasiruun ñi koy def ñépp dañoo perte ndax gañewuñ ci loolu ñuy def yépp gañewuñ ci dara lu dul coow lu bari rek dem ak dem tëdd nelaw de kay fa kawteef takfuru na ngeen di weddi yéen waa màkka billaahi ci yàlla dana doy waar lool yéen waa màkk ngeen ni da di weddi yàlla wakkuntum nekkoon ngeen am waatandi ay toqan toqanta maniyu ci seen ndiggi baay faax yaakum tam dundal leen ay nit ci seen biir ci seen roxo ndey su ma yumitukum topp xal na moo rey leen su ma yuxiikum topp xal na moo dekkal leen ci da topp xar na moo dundal leen ci dekkal de su ma tur jaw topp delloo leen ilayhi ngeen jëm ci moom yàlla de mu ne yàlla doomu adama mi ngi noonu noonu la ko yàlla bindee góor gu nekk mu ngi am ci ndigam toqante man yu boo xam ne bu duggee ci ruxum jigéen rek yàlla mën na caa bind mbindeef noonu la yàlla bindee mbindeefam yépp ay toqantal lañ ci suñu diggi ay bàyyi gannaaw gi ñu sob ñu dellu ci suñu roxom yi yaay yi gannaaw gi ñu génn nekk ay nit ay waxambaane waxtu wa ngay nekk nit kooko nag jógee ci sa diggi bàyyi dem ci sa biir yaay kafa nekk di la toppatoo waxtu wu nekk di la jàllar bekka toppatoo laaj euh, lu sa jamono laaj jamono boobu mu defal la ko defal la ko defal la ko sa yaay yaay mi yaay mi doom ji nekk ci biiram yëgut lii xew ci doomam jooju nga xam ne yàlla nga ko yàlla yàlla nga ko jàllar bi chaque semaine mu def ko noo xam ne melu ko woon chaque mois mu def ko noo xam ne melu ko woon chaque trois mois mu def ko noo xam ne melu ko woon ba ba muy àgg te loolu yépp amut euh, amut naan garab amut dara amut ordonnance amut dara euh, yàlla nga ko yàlla nga koy liggéey nam koy war a liggéeyee ba mu mat sëkk nekk mbindeef mu mat sëkk yàlla génne ko génneyin boo xam ne du ci dugal opération du ci dugal dara loolu yépp yàllaa ko yàllaa la ko defal yow jaam bi génn la ci kaw suuf nga nekk xale gannaaw gi nga nekk euh, mbañ euh, waxambaane gannaaw gi nga nekk mbañ rus diggante boobu ngay nekk ci àddina bi nag yàlla may la ne la mu ngoog àddina bi yépp a ngoog ci sa loxo saxara la ko ma fi samaawaati wa ma fi al-ardi jamii'an lépp lu ci nekk rek yàlla tàggatal la la ko def ci li nga xam ne moom nga bëgg yépp asamaan ngoog xoolal ba mu neex la te doo fay dara suuf saa ngoog demal tukki ba mu neex la lu demal tukki ba mu neex la kenn du la aaye ne la bul dem fii xanaa gannaaw jamono yi nga xam ne nag état yi bëri nañ chef d'état yi bëri nañ nit ñi commencé di tëral ay conditions ay passeport ak ay visa ak yooyu yëpp waaye loolu yëpp ñun doomu aadama yi ñoo ko xewal ci suñu diggante ngir wattandiku suñuy intérêt waaye doonul loo xam ne yàlla moo ko dogal ci suñ biir ci suñ diggante de yàlla suuf saa goog rek siiru fil ardi dox leen ci kaw suuf Ah, seet ngeen seet nag samay kéemtaan naka la gannaaw yàlla moo la sant ne la doxal ci kaw suuf nag yàlla moom tegalu la benn condition booy doxee ci kaw suuf demaat rek feeg yaa ngi koy mën boo mënee doxal boo mënut nga bàyyi waaye nag léegi doomu aadama yeeg seen xel yeeg lu nekk rek nu ñuy def ba génne ci xaalis di nuñ ci xaalis di génne jotaay bi sëñ Mahi di def ci gannaaw takkusaan est-ce que euh, nañ seet ba xam naka lañ ciy génne xaalis yooyu yëpp. Eh, am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat lu yu mel noonu yooyu yëpp mooy doomu aadama seet naka ngay lalee pour dara génn boo demee nag ba dara génn nga dal di commencé utal ko ay garde ak ñu koy watta ne ko ay garde fu pour lii bu ko kenn yàq su ko defee loolu yëpp ay pexe doomu aadama la waaye du yàlla moo ko sant nit ñi <coughs> faax yaakum tam dundal leen ci biiri ndey seen su ma yumitukum topp dana mu rey leen gannaaw bu ngeen dundee ba seen dund jeex ci àddina su ma yox yukum topp dana mu dekkal leen beneen yoon da dana mu dunda leen beneen yoon ci dekkal de su ma turjaaw na topp def na delloo leen ilay jëm ci moom de woowa moom yàlla alladi mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na lakum ñaar leen maa fi lard la nekk na ci suufi juróom jamiyaan mit mu ñuy mboole su ma stawa topp mu jublu ila samaay jëm ci asamaan fa sawaahu na matal leen saba samawaatin ñuy juróom-ñaari asamaan woo moom yàlla alimun aji xam ne mu bi kulli shay'in ci lépp def de yàlla moo bind moo leen bindal moo leen bind moo leen bindal li ngeen am yépp yàlla moo leen ko bind huwa moom moo tax mu mu ne huwa alladi mooy ki nga xam ne xalaqa bind na lakum ñaar leen maa fi lardi suuf ak la nekk ci kaw suuf yépp yàlla moo leen ko bindal su ma stawaa topp mu jublu ila samaay jëm ci asamaan fa sawaahu na tam matal leen saba samawaatin juróom ñaari asamaan waxoo moom yàlla alimun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp lef de yàlla moo ñu bindal asamaan ak suuf ak yépp di ci aju yàlla ñu ko bindal de yàlla nag fii dafa njëkk a wax ne lardal ardu la njëkk a bind suuf si la njëkk a bind dakum maa fil dafa wax fii ne suuf la njëkk a bind door a wax ne asamaan si door ceet jublu ci asamaan def leen ñuy juróom ñaari asamaan waaye boo demee ci yeneen laaya da ngay gis ne yàlla suuf moom lay euh, euh, asamaan moom la njëkk asamaan moom la njëkk a bind bind asamaan def ko juróom-ñaari asamaan ba pare door a bind suuf walarda ba'da zalika walarda ba'da zalika daxaaha gannaaw bu mu paree ci asamaan la door a jublu ci suuf nag dali koy tàllal wala mu wala mu bind ko su ko defee gannaaw boo xamee ne nag suuf yàlla yàlla bindee na noonu bind asamaan yi juróom-ñaar bind suuf amul fu muy waxee ne suuf juróom-ñaar lañ waaye nag ci xam-xam yeeg gëstu yi euh, euh, ci lañ xamee ne gannaaw juróom-ñaari asamaan la rek te ñoo jàkkaarloo boole itam juróom-ñaari suuf la waaye alxuraan amul saba sabo aradina sabo ardina amu ci de saba samawaatin rek moo ci am de waaye nag bu mu asamaan rek saba samawaatin teg ci ard bon ñu xamne itam ne asaman nek juróom-ñaar non la ard nek juróom-ñaar de asaman la njëkk bind tek ci suuf lolu itam amna yo xamne da ngay jàng gis ne suuf la njëkk bind tek ci asaman te lolu yépp lu am la ndax euh man na bind asaman ba pare bind nako ba pare bind suuf waye amna ay détails ci bir asaman après bu su amé la doora a dem defi détails yooya fi itam am na ay détails yoo xam ne gannaaw bu mu defee suuf ba mbëstëng am na ay détails yoo xam ne après la ñëw def ko dal di indil ñu juróom-ñaari fan yeeg indil ñu ndox yeeg indi ñu nangam ak nangam indil ñu yooyu yëpp après détail bu ko defee njëkk naa bind lale fële njëkk naa bind lii fii bon nag benn bu nekk rek mën naa njëkk mën naa mujj waaye nag bind bi amal gi moom suuf moom la njëkk a amal waaye nag gannaaw gi nag la door a ñëw nag tàllal ko def ko dëkkuwaay boo xam ne pour ñun la asamaan si itam gannaaw loolu la ko door a yëkkati def ko juróom-ñaari asamaan def ci yoon yi mu ci def yépp ak biddiw yépp door ko cee def de bu mu ko defee nag yàlla bindal nañu juróom-ñaari asamaan mu tiim ñu asamaan yi bi mu koy bindat bind na juróom-ñaari malaaka juróom-ñaari malaaka yoo xam ne bu ci nekk daf koo sant mu di ko sàmmal jëfi doomu aadama lu ci mat ak lu ci matut ak lu ci baax lu ci baaxut lu jëm ci yàlla te jublu ci yàlla ak loo xam ne jubluwuñ ci yàlla dañ cee jublu rekk seen bakkani bopp bind na juróom-ñaari malaaka yooyu fekk amalagut asamaan ak suuf juróom-ñaari malaaka yu yàlla sant na leen nañ koy seetal doomu aadama ji liggéeyam bu ko defee nag muy juróom-ñaari malaaka malaaka mu nekk yaa ngi taxaw ci jenn asamaan su ko defee bu doomu aadama liggéeyee ci kaw suuf liggéey boo xam ne jàngal julli jàngal xuraan or lépp loo xam ne lu baax la def na ko su ko defee malaaka yi suuf yi dal di jël liggéey boobu yéeg ak moom yóbbu asamaan bu demee bàgg ci asamaan su yëkk si malaaka ma ne leen eh liggéey boobu du jàll de ñu ne ndax lan borom dafay jëw nit ñi jëwkat la lépp lu wax lépp lu mu lépp guddeem ak ba bëccëg yépp mu ngi ci dariñ nit ñi di jëw di yàq bon kooku liggéeyam du jàll delloo leen ko borom dóor leen ko ko ci kar kanam fattee leen ko ko su ko defee nag ñu dal di delloo liggéeyam bu ko defee kooku liggéeyam yàqu na bon di di jëw nit ñi ba pare bon boo eboo bañ a jaamu yàlla ndax xam nga ne sa jaamu yàlla du romb asamaan si mm, loolu yàlla indi malaaka moo xam ne loolu la taxawee beneen jaam liggéey liggéeyam nam gën a rafetalee rafetal rafetal nam gën a rafetalee jàng naa na alxuraan julli na saraxe na jokk na mbokk fonk na ay waajuram yépp li li war a baax yépp def na ko bu ko defee malaaka yi jël yóbbu suñ yóbboo romb asamaan su njëkk dem ci asamaan yi ñaareel malaaka bi ne lee taxaw leen fu ngeen jëm ñu ne kii liggéeyam bi dañuy yóbbu ñu ne déedéet liggéeyam bi du jàll fii kii liggéeyam baaxut delloo leen ko ko ndax kooku dafa añaan kooku dafa añaan lu lu lu xolam yépp gis nit nit ku am lu baax rek xolam di bax loolu rek la fi nekkee de di yàqal nit ñi loolu moom la kooku liggéeyam du jàll de delloo leen ko delloo leen ko liggéeyam sànni leen ko ci kalkaramam de su ko defee beneen jóg beneen beneen jaam jóg liggéey liggéey liggéey ba gën a mat mu éeg ba àgg asamaan benn romb asamaan benn romb asamaan ñaareel ba ci asamaan ñetteel malaaka ñetteel mi ne lii du fi jaar de ñu ne ko ndax lan mu ne kii dafa bëri puukaréew li mu def rek di ko puukaréewoo di koy di ko yëkkati ko ci kaw nit ñi bon alalam bon liggéeyam du jàll delloo leen ko borom dóor ko ci xalkalamam de beneen jaam def liggéeyam ba foog ne pare nañu yóbbu mu romb asamaan ju njëkk asamaan yi ñaareel asamaan yi ñetteel asamaan ba dem ci asamaan yi ñeenteel ñu ne ko liggéey bi du dem ndax lan borom dafa rëy dafa foog ne moo gën nit ñi kooku liggéeyam du jàll fii ci asamaan de fekk mu ngi ànd ak rëy googu bon liggéeyam du jàll bon delloo leen ko doo leen ko ci kar kanamam de nit liggéey liggéeyam moom tamit mu yëkkati dem asamaan benn ñaar ñett ñeent ba jëm si asamaan juróom malaaka ma ne leen liggéey bi du jàll delloo leen ko boromam lu tax ndax borom dafa dafa dafa yéem boppam lu mu gis rek yéem dafa yéemu ci boppam dafa xaaw gis boppam rek lu mu gis rek foog ne moom kenn moo ko mën a def moo ko moo ko def ni mu ko war a defee nit ñëpp defuñ dara moom rek mooy def muy mat moom rek mooy wax muy mat bu ko defee kooku delloo leen ko alalam delloo leen ko liggéeyam yàlla bëggu ko de bu ko defee ñu defati beneen jotaay malaaka yi di éeg malaaka yi ba àgg ci asamaan juróom-benneel malaaka yi ne kii liggéeyam bu mu jàll ñu ne lu tax mu ne kii dafa ñàkk yërmande xol bu tiis la am yërëmut kenn amut ci kenn yërmande yërëmut ay waajuram yërëmut keneen bon kooku borom xol bu xiis boobu liggéeyam du jàll de delloo leen ko liggéeyam kooku baaxut delloo leen ko sànni leen ko ci xar kanamam de bu ko defee keneen itam liggéey liggéey liggéey ba foog ne liggéeyam mat na mu ne nañ yóbbu ñu yóbbu ci yàlla bañ yóbboo ba yóbboo bam romb asamaan dem na ba ci asamaan juróom-ñaar malaaka ma ne kii liggéeyam du du du jàll delloo leen ko borom sànni leen ko ci kar kanamam ndax lan ndax kii dafa bëgg lu mu def rek bëgg nit ñi dégg ko taggee ko ko lu mu def rek dafa bëgg nit ñi déggee ko taggee ko ko buy jàng alxuraan dafa bëgg nit ñi di wax ne kii jàngkate alxuraan la buy julli dafa bëgg nit ñi di wax ci moom kii jullikat la lu mu bëgg rek lu nekk rek dafa bëgg nit ñi di ko waxee mu ne kooku bon liggéeyam liggéeyalut yàlla delloo leen ko alalam daal sànni leen ko ci kal kalamam de bu ko defee nag asamaan juróom-ñaareel dem na liggéey dina ñëw bërëj ci asamaan juróom-ñaar ba dem ba ca kanam yàlla su ko yàlla ne jàmm bii de moom te na malaaka yépp waaye nag man mënuma de man ci sama bopp xam naa jaam bi doon liggéeyal dal na yow sama jaam lan la loo ma liggéeyal mu ne ko jàngal alxuraan daan naa ko def mu ne bëgg nit ñi wax ko rek ne jànkate alxuraan nga woon wax nañ ko jeex na jihaad naa fii sabilillah mu ne ko bëgg ñu ne jàmbaar nga rek jàmbaar nga wax nañ ko jeex na bon nag sa liggéey bi liggéeyoo ko woon pour man utoo woon sama teranga de su ko defee dar su boobu lépp yonent nettali nañu ko lum ñuy jàngal mooy def ñuy jàngal ne nit am na ci biiram loo xam ne lu foor la loo xam ne lu kawe la loo xam ne ma ngi ko amee ba yàlla di wax ne fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi nit ku nekk am na cër boobu ci yàlla la bàyye ko cër boobu nag suulu na ci biiram ba nga xam ne mën naa am sax fàtte na ko su ko defee nag malaaka yonent yi ñëw nañ di ko fàttali nit ñi ak népp nuñ la ko fàttali ko nuñ la ko mën a fàttalee di la fàttali jikko yi nga xam ne mooy tax nga yomba fàtte loolu jikko yooyu gis nga ni ñu ko jàngalee mooy nit koo xam ne jëwkat nga jëwkat du doon nit ku mat mukk la àddina foo ko fekk rek dafay manqué dafay fekk foo ko fekk rek dafay dafay dafay gàcce boo ko xoolee mu rus boo ko xoolee mu sëgg ndax xam na ne li muy wax dara du ci dëgg su ko defee nag jikko boobu boo tàggoog moom da gis ne yaa ngi tabax nit ku kawe nit ku civilisé da nga gis ne itam kañaan borom rek lay kii añaan rek lay lor waaye du lor kiñ añaan ndax kiñ añaan moom yàllaa ko may te moo koy dolli yow nga nekk fi di mer rek su ko defee nga nekk nit koo xam ne doo mat nit doo mat nit mukk nit ku manqué rek ngay doon su ko defee urus yi nga xam ne mu ngi ci sa biir yaa ngi koy suul te suulewu ko dara lu mooy këriñ wala lu gën a suufe këriñ sax su ko defee nag bu boobaa ko bu baax boobu nga xam ne moo suulu ci sa biir moom la yonent yi di génne di la ko génnelee woon ne jaaruwaay yi ñooy yii na nga wattandiku na nga wat wattandikul jaami yàlla yépp ñépp ñoo ñoo ñoo bokk yem bu leen añaanee bu leen jëw bu leen fenal bul réelu ci seen kaw bul gis sa bopp ci seen kaw amal ci ñoom yërmande li ngay def yépp def ko rek ngir yàlla yàlla rek nga ciy sàkku ndax yàlla rek moo am sa pay waaye booy def dara jublu ci leneen loo xam ne euh, lu du jàll bu boobaa sonn nga te da ngay perte rek li nga def yëpp perte ko bu ko defee nit ku cher ko nga xam ne mi ngi làqu ci biir nit ñëpp loolu moo indi yonent yi ak seen i jàngale moo indi wàllu yi ak seen i jàngale moo indi seeni borom xam-xam yi ak seeni jàngale ndax yàlla may ñu ñi moo taxaw sax moo tax sax gouvernement yi taxaw kat ndax gouvernement yi itam dañoo utee doxalee rek waaye nit ku set ku rafet kooku ku mën a tabax kooku kooku moom la ñëpp soxla moom la ñëpp di ut waaye rawatina nag ñi nga xam ne ñoo taxawee diine ndax diine bu taxaw wér te rafet moo gën fuuf gouvernement bu taxaw de ndax diine moom bu taxawee rek rafet rek nit ki àgg na ci lu gouvernement bi bëgg ci moom civilisé na mën naa jokkalante mën naa waxtaan mën naa defar waaye nag su fekkee amoo ko ndax diine yaralu la ko doo ko am laa dina de bon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may Eh, jikko yi ñu dégg fii yépp te dara baaxul ci yàlla ñu ko yàlla yàlla ñu yàlla dimbale ñu mën koo nodde asamaan yooyu yàlla bindal ñu nag juróom-ñaari asamaan la asamaan su njëkk sii weñ gu ñuul la ci la ko yàlla liggéeyee asamaan si ci topp beteex la asamaan si ci topp xànjar la asamaan si ci topp përëm la asamaan si ci topp mar mar la xeeti urus la asamaan si ci topp yaaquut la asamaan si ci topp zabarjet al akhdar la asamaan si nga xam ne moo ñu tiim nag ñun asamaan su xonq la waaye nag lu ko suuf ba mel ni dafa bëla nii mooy saxra bi nga xam ne moo enu suuf moom couleuram ba moo moo moo fii ci asamaan si mu mel ni asamaan su bëla la waaye bulo dafa xonq deug deug te li koy wax ka tan ka dihal ha ah yàlla rabbi ko wat ko libaan fa kaanat tan ka dihal ndax xonq ba mel ni diw mune nonu noonu si dafa xonq de waye yi ne yo gàtt yi bula yi yi yi bi mom dafa xonq non lañu yàlla bindale asamaan yi de واسكور جانت الاس قال بوخي ربك برم سل يا الملائكي لإني نك من جاير دفنا في غد شسوف خليفة خليفة يو يونت بي صلى الله عليه وسلم جانت ال بيا الله دجالة بلاكي دي وخي نيوم نلين دفا بوغا كي تجامل كم كو خول فلاجو آه كان جايرون آه، آه. في الأرض خليفة بيا الله قمر مراكي نلن من دم بوغا ديف سي سوف سي دم بوغا ديف سي كو سوف خليفة بو خمني داف ماي ووتو يا الله بيندنا لو بري تا واخوكو بيندنا عرش واخوكو واخوت ملائكه دينا بيند كرسي واخوكو دارا بيندنا لو نيك waaye waxu ko malaaka yi waaye ba mu bindee ba mu bëggee bind doomu aadama nag bëgg koo jox daraja daf koo wax malaaka yi ne leen man yàlla damay bind doom mindeef moo xam ne dinaa ko def muy sama xalifa ci suuf de loolu moo la njëkk a yëkkatil darajaay daraja ji nga xam ne yàlla jox na ko doomu adama de lépp lim bind yëpp aras kursi ñoo gën a kawe ñoo gën a rëy doomu aadama waaye yëglewu ci benn bi muy bind doomu aadama nag la ko door a yëgle ba mu ko waxee nag ne dafay bind doomu aadama yónni jibril malaaka ne ko demal ci suuf si juróom benn xeeti suuf nga tànnal ma nga tibbal ma ci su ko defee yépp nga booleel ma ko ba ma ko booleelee ma tabax ci euh, ba bind ci aadama suuf jibril dem ba mu demee suuf yo yotu suuf suuf eh, suuf ne ko lii lan la mu ne ko sama borom mu ma yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne dafa wax ne naa tibb ci yow loo xam ne daf ciy bind ay mbindeef yoo xam ne ñii dina leen yóbbu safara ñii dina leen yóbbu àjjana mu ne ko jibril maa ngi lay lentalu ci yàlla bul tibb ci man loo xam ne dafay dem safara de jibril dal di bàyyi ne ko dal di bàyyi de ba mu demee mu ne jibril naka mu mu ne ko daf maa lentalul yàlla daal ma ma bàyyi ko de mu ne isra israfil demal mu dem mu wax ko loolu mu bàyyi mu ne azrail demal mu dem mu mu mu wax loolu mu bàyyi mu ne malakul mawti demal mu dem malakul mawti ñëw mu wax ko ko ne ko maa ngi lay lentalul ci yàlla bul tibb ci man xaaj buy dem safara mu ne ko man tamit maa ngi lay lentalul ci yàlla li ma yàlla sant bu ma ko teree def de dal di tibb yo dal di dal tibb ci la yàlla bind dal koy tabax nag def ko benn statue boo xam ne nee nañ guddee na ju ñeent fukki mètre ak benn euh, ci waxi borom xam-xam yeeg tegtalikaay ba mu ko defee nag dal koy tëral malaaka yi léeg-léeg ñu ñëw xool lii façon bii musuñ koo gis façon bi yàlla tëral fii suñ kanam musuñ koo gis lii lu ci yàlla jublu su ko defee iblis itam ñëw xool xool xool dugg ci biir xaw ma lan la de waaye dana bëgg lekk de ndax biir bii ma gis lekk rek a koy feesal de bu ko defee dag xool xool moom tamit du xam lii lan la benn bés mu xool ba xolam sedd mu dal di ñëw xaw ma lu la yàlla bindee de waaye su fekkee sant na ma ci yow dara danga xam ne duma ko nangu de dal di koy tafli fa mu ko tafli ci ci mu tolloog jumbo xam bi yàlla xeet ko sànni ko nee nañ ci la yàlla bindee xaj ci la xaj bàyyee ko moo tax xaj bi dara mun leen a tàggale de ba ko defee nag yàlla bind noonu aadama nekk fa ñeent fukki guddi mu meral ko nii ñeent fukki guddi mu meral ko nii ba ñeent fukki guddi yi nga xam ne roxo gaa ngi dugg si mu dal di bind roxo ne ko demal dugg ca lële roxo ñëw yuurndu yuurndu dal di ñëw ne yàlla ah fee du ma fa dugg de mu ne ko lan mu ne lëndëm nga ma gis du ma fa dugg mukk mu ne ko demal dugg mu ne ko yàlla jéggal ma rek mu ne ko demal dugg bu la neexee demal dugg bu la naqaree moo tax mu dal di ñëw dugg ak ak ak neexu ko moo tax it buy génn itam du ko neex de ba dugg na neexu ko buy génn itam dafay métti ci moom ba mu ko defee nag yàlla ci la bindee doomu aadama doomu aadama dal di dal di doxal du nu muy eeg eeg eeg eeg eeg ci ay hoomam mu ne bëreet ne mu ngi taxaw dal di daanu ndax li ci des amagut ba mu ko defee yàlla ne ko dama yàlla jibril teeyal defal aadama dalal teeyal pareeguma rek ba mu ko defee dundu di dundu gi di éeg di éeg di éeg bàgg ci bakkan yi mu tisooli ba mu tisoolee ne alhamdulillah jibril na ko li a taxoon yàlla bind la de alhamdulillah yi a taxoon yàlla bind la بامكو ديفي ناك مو يالا دال لي اغالي بندم بامكو ديفي موم ادم مو نيكا واخ الحمد لله واي ابلي اي اي جبريل مو نيكا واخ سبحان الله يونت يالا نوح مو نيكا واخ لا اله الا الله يونت يالا ابراهيم مو نيكا واخ الله اكبر يونت يالا محمد مو نيكا واخ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لولو موي ال نكا نكا لنجو واخيتي ah baaqiyaatu saalihaat képp ko julli man nga ko moom ngay tëjee sa sa bàyyi julli de mu ne ba mu ko defee nag yàlla dal di bind aadama ba mu bindee aadama ma ca ma ca fan fu aadama nekk bi ko yàlla bindee ba mu koy amal ci fan la nekk ndax ci aljanna la nekk am na ñu wax loolu am na itam ñu wax ne aadama nekkoon na rek ci pays ci pays yàlla yoo xam ne yàlla moo ko xam foofu la yàlla attee lam atte yépp door a amal aljanna us uskun anta wa zawjuka aljannata gannaaw gi la ko doon wax ne yow ak sa jabar dem leen dëkki aljanna bon su fekkoon ne lam doon def yépp ci biir aljanna la nekkee bon jaratul mu koy wax parce que déjà nekk nañ ci ba pare am na ñu gisee noonu ne bon nag place ba mu nekkoon nekk na rek pays ci pays yàlla yi ndax pays ci pays yàlla yooyu moom la ko yàlla wax nag génnal ci pays bi demal aljana dëkk fa ak sa jabar ba mu demee ba juum njuumte goo ko mu juum ci aljanna lañ ko door a wàcce nag indi ko ci suuf si ak i doomam yàlla ba muy bind aadama wax na ko aadama man dama bind ñaari mbindeef bind naa aljanna bind naa safara wax naa aljanna ne ko dinaa la feeña feesal wax naa safara ne ko dinaa la feesal ndax nangu nga ma bind ci yow loo xam ne lii dina dem safara lii dina dem aljanna mu ne ko bu sa ngërmande nekkee rek nangu naa mu ne ko dinaa la xas wax ne yaa ko waral mu ne bu ci sa ngërmande rek nekkee rek nangu naa mu daldi bindanteeg yàlla loolu su ko defee nag adama ba ko yàlla bindee ba nga xam ne pare na mu dal di wax iblis su yóotal ko iblis bañ ñi ngeen xamee xista bi ba yàlla dàq iblis mu génn fu mu ko doon dàqee muy génn ndax aljanna la ko doon dàqee muy génn walla feneen foo xam ne du aljanna am na it ci boroom xam-xam yu werantee aljanna la woon du aljanna fii la woon fële la woon waaye lu mën di am xissa bi li ci am dëgg rek mooy ne am na loo xam ne xew na ci yàlla ak ay lenn ci ay jaamam yàlla nettali nañu lii nettali wu ñu lële lim yu nettali mooy lii mën a jàng ci téere bi di ko gis lim yu nettaliwut nag waxut seen waxut ne tëj leen seen xel yi bu leen gëstu gëstu leen ci waaye nag euh, gëstu bu àndut ak gëstu bi nag fois ñun dañuy exagérer parce que ñun dañuy ëppal suñu bopp suñu bopp mune bam ko defé nak yàlla daldi bind adama bamuy bind adama bobu dafa wax ne rek na nga bind dafa bind adama min sulalatin min tinin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin ba ci ba ci dobam yi bon adama moomu mu bindoon min sulalatin min hamaid masnunin yokuna darajam du aadama ñi mu wax malaaka yi ne leen inni jaailun fil ardi xalifatan aadama mu njëkk moomu aadama kese kese rek la waaye aadama mii nga xam ne nag oo na ko pour takkal ko ay garaat ba jox ko dara ci ay jikkoom jox ko dara ci ay mën-mënam ak xam-xamam mu ne boobu beneen aadama la de moo tax moo tax yàlla wax ne jaailun fil ardi xalifatan xaalu ñu ne atajaalu ndax da nga def fiha ci aljanna ci suuf man yufsidu ka dana mu yàq fiyaa ci moom woye sukuta muy tuur addima deret yi wa nax nu nun nun malaaka yi nu sabbixu danañu sabal bi xam di ka mbit mu ñu làmboo cant sa wa nu xaddisu dañuy sell la ka ñeel la ñun nga xam ne dañ lay sant dañ lay gërëm di la sant yàlla di la sant di la gërëm di la sabal ñun nga bàyyi ju fi ba pare di ut koo xam ne moom dafay tuur deret rek kooku nga bëgg a def def ko xalifa xaala wax yàlla ne leen inni naka man alamu dana ma xam maa laa taalamuuna loolu xam ti leen ko de nangeen xam ne man yàlla mi leen di wax lii man xam naa loo xam ne xamu leen ko de ba mu ko defee nag yàlla bind aadama dal di koy matal ak bindam dal di koy jàngal nag waa la moom mu xamal aadama aadama la sama tur yeeku laa yëpp seen yàlla dal di xamal aadama tur yëpp lépp loo xam ne bind na ko lu nekk yàlla wax na aadama nu mu tudd lii nii la tudd lii lii la lii potindaa la lii mbattu la lii lii la ñeneen xattaa noxal wu yëkkatiku ak bu yëkkati kuut yépp jàngal na ko ko jàngal palaat yeeg lu nekk rek lu aadama war a xam rek yàlla jàngal na ko ko de ba mu ko jàngalee ba pare summa aradahum topp mu gaaral mbir yooyu alal malaayikati ci malaaka su ko defee yooyu mu bind yépp xamal ko aadama dal di koy won malaaka yi ne leen lii lan la malaaka yi xamuñ ko de fa qaala fa mu wax malaaka yi ne leen ambiuni solo leen ma bi asmaai haulaay ci tur yi la yëf in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina da way su fekkee da ngeen di wax dëgg la bon yëf yaa ngi nii wax leen ma malaaka yi dal di tontu subhanaka tudd nañ sell sa laa ilma den xam-xam danaa ñeel ñu illa ma lamtanaa ndala xamal nga ñu ko de innaka naka yow anta yow al alimu yaay aji xam al hakimu yaay aji xereñ ci sa xatte de ba nga ko defee aadama ba nga xamee ne yàlla bind na malaaka yi ne ko nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka ñun dañ lay sellal dañ lay màggal dañ lay dañ lay dañ lay sant loolu yàlla xamal leen ne man maa leen bindee noonu ba ngeen am foo xam ne dangeen fa pakk boo xam ne dangeen ko muuroo mooy loolu doomu aadama yi nag man tamit yàlla maa leen bindee lépp lu ñu def ci ay njuumte maa ngi ànd ak ñoom defal leen pakk boo xam ne mooy pakk ab jéggale dama leen di jéggal di leen yërëm waaye jéggal ak yërëm nag ki jéggalu ku jéggalul moom jéggaluwut waaye ku jéggalu sàkku yërmande rek yàlla dana nekk ak yow yàlla may na malaaka yi am nañ pakk boo xam ne ñu ngi fa sangu jeex na mooy nu sabbihu laka wa nuqaddisu sulaka yàlla bindal nañu ñun ci mbaaxam benn pakk boo xam ne mooy almaghfiratu wa rahmatu loolu yàlla ñu ko may de mu ne wa fa qaala am bi xaawla in kuntum saadiqina xaalu ñu ne subhanaka tudd nañ sell sa laa ilma déet xam-xam danaa ñeel ñu illa ma lamtana ndara la xamam nga ñu ko de innaka naka yow yàlla anta yow alalimu yaa aji xam الحكيم يا جقرن سا يا جقرن سا نجفت سا نجفت قال وقت يلا يا آدم يا آدم أنبئهم صلولين بأسمائهم تتوي يفير آدم جانغال لين ييلان لا فلما أنبأهم بمو صلولين بأسمائهم تتور سين قال موخ ألم أقول لكم لخوكم لين إني أنا كمان أعلم دنما قم ba sama fàdduk asamaan yi juróom-ñaar wala arde ak suufi juróom-ñaar de asamaan juróom-ñaar lépp lu ci fàddu ak suufi juróom-ñaar yépp man yàlla xam naa ko de maanaam xam naa lu ngeen xamut wa aadamu dana ma xam maa tub duuna la dangeen feeñal ko ci ay wax wa maa teg tumuuna ak la da nëbb ko ci ay wax ak de mu ne malaaka yi nag gannaaw bu leen aadama eh, eh, eh, jàngalee bañ xam loo xam ne xamuñ ko woon ñu dellu sant yàlla de ba mu ko defee nag lu ci topp waskul jàngatale iskul naa ba ñu waxee leen malaayikati yeel malaaka yi ne usjudu waay sujjóot leen li aadama ñeel aadama sujjóot leen ñi ñeel aadama fastajadu ñu sujjóot illaa iblis ndara iblis de su ko defee nag nga xam ci dars bi ne xam-xam xam-xam rek mooy njiit moo mën a leeral moo mën a def nit mu nekk njiit mu mën a def nit mu mën a nekk sang ndax gis nga Adama turaab rek ci la ci la ko yàlla bindee malaaka yi mu ngi leen bindee ci leer malaaka yi yàlla ngi leen sàmm ba duñ mooy yàlla waaye nag mu ngi ko dencal na ko dinaa la jéggal maanaam koo xam ne dañ koy jéggal mooy dana def duñ koy jéggalee bon mook malaaka yi ci seen cosaan mu mënu ñoo niroo daraja waaye gis nga nag bi nga xamee ne xam-xam ñëw na Adama xam ko gis nga ne malaaka yi ñoo mujj su jootal aadama ndax aadama xam na lu leen xamul bon képp koo xam ne bëgg nga jiitu na nanga am xam-xam xam-xam bi itam nay xam-xam bu wér xam-xam yépp xam-xam yu baax la ndax xam-xam yépp lii ñu ngi koy dundalee àddina lii ñu ngi koy dundalee mbiri diine ñii dundal àddina ci seeni xam-xam ñu ngi def lu baax ñu ngi ciy góorgóorlu ñii dundal àddina ci seen diine itam ñu ngi def loo xam ne itam yàlla sant na leen ko xam-xam bi ci gën a baax gën a jëriñ doomu aadama mooy xam-xam boo xam ne daf lay lëkkaleeg yàlla de xam-xam boo xam ne daf lay xamloo yàlla daf lay jegeloo yàlla moo gën ci xeetu xam-xam yi ñuy jàng yépp yeneen xam-xam yépp xam-xam àddina rek la bu àddina jeexee jeex na am na xam boo xam ne dafay continuer moo tax képp koo xam ne bëgg ngaa doon sang na nga am xam-xam de yàlla tuddal nañu juróom-ñaari nit ci alxuraan ñoom ñépp boo demee xam-xam moo leen def sang mu ngi nii aadamaa ngi nii malaka yang ngi koy sujjóotal boo demee da nga gis wa allam min taabiril ahadis yi yonent yàlla yusufa da nga gis ne ay rakam ñom ñep ak bayam su jotal nañ ko ndax lan ndax liko yàlla xamalon ci hadith de khadir ci lako yàlla wa allam min ladunnaa ilman ci la amé talib bi mel yonent yàlla musa alayhi salam mu nek ay talibem de bo demé yonent yàlla da wa alannaa lahul hadiida an i'mal saabiqaatin bo debé itam lolu ko yàlla xamal wa alamnahu sanata labusin lakum li yoxsinakum ci lako yàlla maye teranga yo xamne mujjina nek na jamanom yeb nako nako na ko ci yàlla sulayman alamnahu mantiqa tayri yàlla may nako degna yàlla xamal nako degna dégg na waxi njanaaw yi loolu itam ci la nekke buur bo xamne ne buuri àddinaam la de lolu yeb nga gis ci ne xam-xam mo am njëriñ moy jital nit moy degeural nit moy tax lu nit def fi tabax ko ci kaw xam-xam daf fi des rek liñ fi des yépp tabaxu ci kaw xam-xam yooyu yépp bu seen jamono jeexee rek jeex na tàkk waaye liñ fi def tabaxu ci kaw xam-xam daf fi des rek ba ilaa yawmi diini ndax loolu la yàlla bi muy tabax mu ngi tabaxee ci kaw xam-xam bi muy bind doomu aadama pour indi ko xam-xam la ko yóbbalee wa allama aadama al asmaa kullaha xam-xam la ko yóbbalee ba pare xam-xam boo xam ne ba la ko yóbbalee seet na ko ba gis ne doomu aadama ji xam na xam-xam attan na ko te mën na koo toxal mu dal di ko waa allama ah am bi um bi mu jàngale bon xam-xam mooy njiit képp koo xam ne am nga xam-xam yaa eyoo jiitu ku amul xam-xam nag bu baaxee na topp rek waaye nag amoo xam-xam ba pare na may jiite da nga indi nit ñi fitna de hmm? ah sujudu fas yélu ñu sujud illaa iblisa na ñépp sujud ba mu des iblis aba bañ na mu wastakbara tam réylu iblis dal bañ moom dal di réylu ne du su jóotal aadama ndax yaa waqul naa ñu wax yaa aadamu yow aadama uskun dëkkal anta yow wa zawjuka ak jabar sa aljannata aljanna wakku laa lekk leen min ha ci aljanna raxadan ci yaatu de aljanna ngoog ak lépp lu ci nekk rek yow aadama yaag sa jabar yéena ko moom lekk leen nu leen neexee wala taqraba waaye bu leen jege haadihi shajarata garab yi de garab gi moom bu leen bu leen ko jege ak nu mën ci mel aljanna yépp yéen ko moom waaye garab gi de moom bu leen ko jege de ba mu ko defee nag foofa la yàlla waxoon ak moom ne ko dinaa la xas dinaa la wax dinaa la wax waaye nag mu ne ko su fekkee ànd nag sa ngërmande rek d'accord naa de ba mu ko defee nag ba mu ko indilee garab gi ci la ko indilee ci lay indi nag li nga xam ne moo taxoon yàlla bind aadama mooy dana wàcc ci suuf dund ci mook ay doomam su ko defee nag garab gii la def yoon bi nga xam ne mooy yoon bi mu koy jaarale pour wàcce ko mu ñëw suuf de xam ko defee adama bañ la lekk garab ga daw daw daw daw na ko ba sonn waaye nag adama bi ko yàlla bindee mu wéet lool moom kenn du gis lu mooy ay njaaxal ak yooyu rek lay gis ba mu ko defee mu wéet benn bés mu tëdd nelaw rek yeewu yàlla bind ci sàll wetam gi xawaa mu yeewu rek gis mbindeef mu rafet mu jigéen ci wetam rafeta rafeta lool mu daldi di wax mu dal yóg rek yemali ko malaaka yi ne ko déet defal nànk ma balankoo laal da nga joxe canam de ndax sa jabar la mu ne luy canam ñu ne ko waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy canam wala boog euh, euh, jàngal ko ay baat yoo xam ne euh, léegi nag aadama moomu xawaa ñëw nekk jabaram xawaa nag moo fi nekk rek di ma ni bëgguma lii lii laa bëggu damay lekk ci garab gi du ma ci lekk ma ma dag ma bañ rek ba lekk loo ko garab gi ba mu lekkee garab gi nag dal di lim soloon moo xawaa yëpp dal di naaw gisatuñ dara ñu dal di nag jël ci xobi aljana yi di takk ci seeni xawra ndax mucc de loolu mooy xam mooy xissa diggante baay ak doom diggante doom ak yaay yooyu yëpp boo demee da nga fekk waaye nag du yooyu nekk ci diggante ay ay jurante yi du noono noono gu dëgg gu mën a jël rey nit wala dogo dogu nit waaye nag yàllaa ko bindee noonu rek noonu la doxa ak yóbbal ilaa xiinin ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci diit de fa talaqaa te jot aadamu aadama min ci borom kalimaatin ay baat fa taabatam tuub te nangu yàlla tuub alayhi ci moom innahu naka moom yàlla huwa moom attawaabu mooy nangu hakkoon ak tuub arrahimu mooy aji yërëm ay ay moo arrahimu mooy aji yërëm ay jaamam de xul naa ñu wax ne ihbitu wàcc leen minha tukkee ci aljanna ja jami'an mit mu ñuy mboole seen mit mu ngeen di mboole yéen ñëpp génn leen aljanna de fa in maa yaati yennakum ndem dikkal na leen min ne tukkee ci man hudud am njub fa man tabia uh, fa ma yaatiyeennakum ndem dikkal na leen min nit koy ci man hudan téere wala yonent fa man tabia ku topp na mu hudaaya téere sama wala njub sama wala xaw fu den ti daal yem ci ñoom wala moom déeg ñoom yaxzanuna ñuy jàq ci bés ba nga xam ne nit ñi nañ jàq de wala zina waaye ñaa ña kafaru weddi nañu wa kazabu te yu narloo bi ayatina ci alquran sunu ulaayika ñooñu la gaay asaabu naari ñooy woromi safara hum ñoom xaaliduuna way bel lañu fiyaa ci safara soosole yaa bani israila e yéen doomi yaquba fukk ak ñaar uskuru tudd leen fàttaliku leen ne ma tiyee xewal sama la tiyee xewal gën xam ne naam tu xewe naa leen ci ñoom woowu fu waay matal leen bi ahdi ci kóllóore sama nga xam ne kóllóore woon tooy naa ko yéen ci gëm yàlla de woowu fi ma matal bi ahdi bi ahdikum ci kóllóore seen de matal leen rek li ma waxoon ak yéen ci gëm yonent yàlla muhammad man itam ma matal li ma li ma waxan li ma waxanteeg yéen ci dimbale leen de waaye yaaye man yàlla farhabuni ragal leen ma de man yàlla rek maa jara ragal ragal leen ma de wa aminu ñu gëm wa aminu gëm leen bi ma anzaltu ca la wasal na ma ko ci alquran musaddiqan mbit mu muy aji dëggal li ma maakum li ànd na moog yéen mi ne balaa balaa takkunu bu la nekk awla kaafirin ci njël bennal way weddi ci njël bennal aji weddi ci alquran ji de gëm leen alquran yi nga xam ne alquran jaa ngi dëggal tawraat dëggal injiil waaye bon bu leen weddi alquran ji de wala tashtaru bu leen watt bi ayaat yi ci kawteef sama ci ay ci ay ay ay kawteef sama yi nga xam ne wax naa ko ñem mooy melo yonente yàlla Muhammad bu leen ko weddi sama nan ci njëkkal yi itam daa ji néew de ngir joxe e, ay fen rek ngir am xaalis bu leen ko jaral de li wax ci yonent ne mooy melokaanam ci tawraat wax leen ko te nangu ko dem di ko jaayee ay alal nag ngir dégg wax leneen loolu bu leen ko def de wooy yaaye man yàlla daal fattaquni ragal leen ma de ragal leen man yàlla rek wala talbisu waaye bu leen jaxase alxaqa dëgg bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yoon bil baatali ci ay nar nar yi nga xam ne yéen a koy yéen a koy yéen a koy fent rek di ko wax bu mu leen jaral nag yéen nëbb dëgg gi nga xam ne man yàlla wàcce naa ko ci melaw yonent yàlla muhammad teg tëgtumul xaqa te bu leen nëbb dëgg de nëbb gi nga xam ne dëgg gi nga xam ne moom lañ melale yonent yàlla muhammad ci seen téere yi dëgg googu bu leen ko nëbb de wa yeen yéen taala mu na ngeen di xam ne loolu mooy dëgg de yéen da ngeen xam ne loolu Injiil wax Tawreet wax ko ci Muhammad loolu mooy dëgg waaye da ngeen koy nëbb de waa qimu taxawe asalaata julli juróom waatu joxe leen zakata ju euh, euh, asagi asagi asakaay jur seen war kaw rukoo leen war julli leen maa rakkee ndax ànd way rakke ànd way rukooya allahumma salli ala sayyidina برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان